wal malaayika min xiifati wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammad salaatan taftax lana biha abwaab alrida wa taysir wa tuxliq anna biha abwaab alcharri wa tacsir wa taqdi lana biha jamica alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira anta waliyuna fa nicma almawla wa nicma alnasir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 di ziyaara kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura eh, di ñaan ñi ci hôpitaux yi te wéri di yàlla na leen yàlla delloo seen sago waaye di ñaanal ñi nga xam ne ñi dañoo nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg it lu ñu indil seeni njaboot yàlla na leen ko yàlla yombalal di ñaan sunu Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla tàppe xol yi ñi ànd nekk benn jàppalante dimbalante yërëmante li wajhillaahil karim su ko defee ñu dellu siwaat kan aada fi kulli yawm aljumaa wa nashkurukum gaayata shukri li mutabaatikum maana fi barnamijikum tafsiru alaxlam wa nahnu ala kulli xaal fi intidaarikum bi diqatin wa surur balaa ñuy sori nag ñu jël kàddu gi jox ko sunu xarit sunu këll rek ngeen xam ko muy Cheikh Abdoulaye Ndiaye mu saafonte ak askan wi nuyonteeg jullit yi wa ala kulli xaal ñu door a ñëw nag ci seen waxtaan niñ ko daan defee ci àjjuma bu nekk ci waxtu wi xaaji Abdullah tafaddal jërëjëf oustaz Abdou Karim Ba jërëjëf mbokk yi di wéy di ànd ak ñun di ñu seetaan ñu amaat mbégte gu rëy eh, ginnaaw bi ñu delloo sant rek borom bi nga xam ne moo ñu may ñu am ngëm Pastef dëggu maandu yërmande ak njub julli si sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa gërëm waajur yi ñaanal kilifa diine yu aada yi nuyu mbokk yëpp yi nga xam ne jamono ji ñoo ngi wéy di ànd ak ñun dañu seetaan ku ci nekk fa nekk ñoo ngi lay ñaan yàlla may la fan wu gudd ak wér-gu-yaram oustaz ñuy jaar mbokk yi tamit di dellu sant borom bi ci li nga xam ne ci la ñu jógee ci weeru koor wi lépp li nga xam ne def nañ ko ci mhm. borom bi daan nañu ci ko nangul saxal ñu ci ngëm ci Pastef dëggu màndu ak yërmande comme ni nga ko waxee rek yokk jàmm ak salaam ndax loolee daanaka bu saxee mën nañu am xel ci lépp loo xam ni daanaka njariñ lay doon ci askan mhm. waaye ñuy nuyu boole ci di jaar di ñaanal ñi nga xam ne ñoo jiitu di ñaan foofee ñu nekk gënal leen fi ñu jógee mhm. te ñu fi bàyyi woon ci alal ci njaboot borom bi daal di ci teg loxom yow tamit oustaz dañ lay ñaanal rek yàlla mhm. may la fan wu gudd ak wér-gu-yaram ba ngay mën di ñu gindi dañu taxawu te lépp loo xam ne ñoo ngi koy wax mu doon njariñ ci mbokk yi ànd ak di ñu seetaan ci Télé Futurs Médias jërëjëf oustaz jërëjëf shukran ala kulli haal Haji Abdullah Ah, balaa ñuy ubbi téléphoné dañuy ziara eh, alaaji Youssou Ndour nga mhm. xam ne mooy mooy eh, président eh, groupe Futur Média di ministre conseiller ñu di ko gërëm di ko sant di ko ndokkeel ci festival Salam bi ñu génn ak taxawaayu rafet yi ñu ci taxaw di ndokkeel it Mamadou Ibra Kane nga xam ne mooy président béréb bi muy kër gi di ziara Birane Ndour di ziara ba tey euh, it Bouba Ndour di ziara Njaga ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla mu nga xam ne ñoo ŋànk kër gi yàlla dëgëral seen taxawaay bi fi ñuy bëgg àgg ñu àgg fa euh, festival salaam bi yàlla defal ci ji Youssou Ndour ndam lu yaatu fi mu ci bëgg àgg yàlla àggale ko fa ñu bëgg ko ñaan yàlla chaque année ñi di ko teewe yàlla def bu déwén bi bu ñëwee mooy dàq bu ren bi incha allah ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def euh, kenn ñëpp fekkee ko kenn bañ a manqué bi jaay sayyidul wujud euh, xaaj Abdoulaye dañuy ñëwaat ci ubbi téléphone yi nag ànd askan wi mhm. euh, muy 88 628 04 05 wala boog 88 628 65 65 wala ñu ànd ak ñun ci 00 221 33 841 22 99 00 221 33 841 22 99 mooy waa bitim réew incha allah ñu jël ko ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah allo. allo. waaw. waaw Fatou Gueye laa soxla. waaw bisimilah ñu ngi lay déglu. ah. waaw ñu ngi lay déglu. ñu ngi lay dégg. waaw bu baax. waa waaw ñu ngi lay dégg yow yaa ñu déggul waaye ñu ngi lay dégg. dafa bu ma waaw bu baat bi yëkkati ko ci kaw bu ñu déggante bu baax. waaw nag. Mhm. allo allo allo allo allo. allo. waaw xam naa ni dégg-dégg bi ma xaw a naqari dégg-dégg dégguñu ko bu baax. allo allo. waaw. waaw da nga yëkkati kàddu gu baax ñu déggante. allo. allo. ça va. waaw bismillah. daa am gént bu ma doon laajte. Mm-hmm. damaa gént dof di ma dàqe loolu laay laajte lan la. dangaa gént. dof di ma dàqe loolu laay laajte lan. fas. dof dof. ah dof. waaw. Mm-hmm, mu lay dàq. waaw. Mm-hmm. loolu laay laajte lan la. waaw dina ci ñëw léegi incha allah. 88 628 04 wala 88 628 65 65. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. allo. allo oui. waaw man de dama bëggoon leerlu tuuti. Mhm. sama rak damay sëy wante boobaak am na juróomi at. Mhm. waaye amaguma bant. amagoo nag sama déedéet waaye nag sama rakk bu jigéen. Mm-hmm. daf maa géntal ni sama goro. waaye sama goro dafa génn àdduna. Mm-hmm. sama rakk bu jigéen nag géntal ma ne sama goro dani ma gént ci gént ni dafa gis sama goro di jooy na ma doo fi am njaboot. sa sa sa rakk bu jigéen moo gént. waaw moo gént mu ne sama goro bu jigéen dafa dafa da doon jooy da koo gis ci ci gént muy jooy ne ma fii doo fi am njaboot. Mm-hmm. waaw ma doon leeru loolu nag. mu ne yow doo am doom. waaw mu ne sama goro jigéen moo doon jooy di ko wax. moom mu ci jooy. waaw sama goro jigéen moo doon jooy naan ma fii de doo fi am mbant. Mm-hmm. waaw te sama goro jigéen dafa làqu ma doon leerlu loolu nag. dinañ ci ñëw léegi incha allah jërëjëf jërëjëf ala kulli xaal dinañ ci ñëw léegi incha allah 88 628 04 05 salaamaaleykum. allo. allo. waaw bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw papa man da amoon benn gént bu ma doon laajte. Mhm. damay saa gént commencé doom. bu hmm? bëri bëri bëri commencé doom. dégg nga bu baax. damay faral di doom. commencé doom. sa sa sa sa ah, ngay matu doom. déedéet damay faral di gént tomaate doom ah doom waaw tomaate farci bu xonk bi dama koy lu bëri bëri bëri bëri bëri bëri da ciy gis lu bari waaw tomaate doom dama koy rek mm-hmm. waaw loolu daal dama koy may lool lool lool waaw baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah eh, shukran ma zilna fi intidarikum kal aada asalaamaaleykum allo. allo Oustaz Abdou Karim. waaw. na ngeen def. sant yàlla alhamdulilah. ana waa kër gi. ñëpp nga fi. ñu leen siyaare bu baax. yàlla yàlla nangu siyaar. waaw dafa am benn gént bu mënoon laaj. Mm-hmm. sama soxna ci boppam. Mm-hmm. dafa géntoon yàlla may ko doom. Mm-hmm. mu ma ko doon wax nag léegi ma ne ko xaaram woote laajal la ba xam. waaw te yàlla dafa dogal mu toll ci diggante dafa jigéen ju wérul la mm-hmm. allo waaw waaw ma ne jigéen ju wérul la moom mm, daa toll diggante waa dafa toll diggante waaw mm-hmm. waaw baax na dañ ci ñëw léegi waaw léegi it maanaam sama waajur wu jigéen mm-hmm. allo waaw sa waa sa waajur wu jigéen waaw yàlla dafa dogal maanaam moom itam bii ci guddi mu gëntoon gis ay jën yu bari waaye jën yi daal daf mel dañ ko jóg ci suuf muy jën yu nooy ay jën jën yi ñuy lekk waaw ñu koy xamal naan ko fee la ruu nekk ruu yi ruu seen seen waaw ñu koy xamal naan ko fee la nekk mm-hmm. waaw ñaari gént yi daal laa bëggoon nga dimbale ma rek leeralal ma ko mm-hmm. incha allah loolu la woon waaw dinañ ci ñëw léegi incha allah shukran sanaati bi zalika xaal incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah papa ñu ngi ziar bu baax. yal na yàlla nangu ziara. man de dama ma ñaari gént yi ma bëggoon laajte rek. Mm-hmm. bi si njëkk mooy dama doon dox wàllu waxtu timis. Mm-hmm. jékki-jékki am benn uh, picc bu jógee ci kaw asamaan si rek dugg sama dugg sama dënn bi. picc. waaw benn picc. benn picc. waaw. Mm-hmm. nu mu la def. Uh, dafa dugg sama dënn bi rek. dugg sa dënn. waaw. Mm-hmm. waaw. ci sa biir dënn la dugg ñaareel waaw mm-hmm. euh, ñaareel bi nag. Mm-hmm. dafa am benn woykat bu mag. boo xamante ni dafa nekk ci kaw étage bi. ak ay ak ay nit mel lu sëpp si balcon bi. après bu may ñëw ba jege leen après maa ngi ànd ak boobu sama sama waajur ak sama mag daanaka. ma mm-hmm. ñëw ba ba ba ba ba jege ko di commencé di wax ak moom mais bu may wax ak moom sama voix dafa am doole sama baat dafa am doole après moom it mu taxaw di ma déglu ba mu wax ba pare après si la ñu ànd may mu mu ma ñuy dem après la ma wax ne ma yow da am fasaaxa. Mm-hmm. la ma wax ne ma sa baat dafa am fasaaxa après si la commencé après si la ma si la ne nag euh, dafa ma bëgg a way. ma ne ko hmm. man taalibe Serigne Touba la man jànkat de la man du ma déglu musique. Hmm. après si laa ko woyal wan ginnaaw si la may woy. léegi ba hmm. may woy nag joxuma woy bi importance tax man du déglu musique. léegi maa ngi koy déglu mi ngi way mi ngi way mais ci biir way bi mi ngi wax naan di courage di courage. mais daal waykat bu mag la ku siiw la ci ci àdduna bi actuellement. léegi nag moo bëggoon nga nga dimbali ma si foofu tamit. waaw baax na dañ ci ñëw léegi incha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñoo ngi ñoo ngi bëgg nag bu baax ci woote bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. shukran sanaati bi zalika xaala incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah. allo. allo salaamaaleykum. allo. allo. waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw ñoo ngi leen di ziar. yàlla na nga ziara. waaw dama doon laajte dama gént euh, feebar. Hmm? feebar. xeesal. man ma feebar. ah feebar. waaw man maa feebaroon. yow yaa feebar. waaw ci gént gi dama gént feebar ci. Mm-hmm. bañ sampal ma ay butéel sama bakkan yeeg yooyu moom laa doon laajte. ba sampal la ay butéel. Mm-hmm. waaw. moom laa doon laajte. dinañ ci ñëw léegi incha allah jërëjëf. Eh, salaamaaleykum wa rahmatullah allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. man dafa am yu ma bëggoon a leer ma ah. dama kii dama ma nekk ak sama soxna ci biir ndox. waaw doo yëkkati baat bi ci kaw ñi dégg taw. ma gënt nekk ak sama soxna ci biir ndox. nga nekk sa soxna ci biir ndox. ci biir ndox. ci biir ndox waaw. waaw maak sama soxna. Hmm. waaw waaw beneen tamit dafa gënt. mu am doom doom ñaar gënt na ñaari yoon am doom. kan mu am doom sa soxna. waaw ñaar ñaata doom. ñaar dafa gënt ñaari yoon am. mu am doom. waaw ñaari yoon gënt na. waaw. waaw beneen bi tamit dafa gënt fi ma nekkoon ñu sàcc ko daal. Mhm. ñu sàcc ko. ñu dajji bitig bi sàcc ko ba mu jeex. ñu dajji bitig bi. waaw dañ koo dajji waaw. waaw. di dajji ko. waaw. waaw beneen bi tamit ñuy sol ñuy sol ay sagar nekk ci àll amuñu dara ñu ñàkk. ngeen sol. ñu sol ay sagar amuñu dara ñu ñàkk ci ci bi ñu. Mm-hmm. waaw waaw ñu ñàkk amuñu dara ci jënd. ci àll bi. allo waaw dana ci ñëw léegi incha allah 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 ñu ngi lay salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo waaw salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw dafa dafa amoon benn gént bu ma bëggoon ngeen firil ma ko waaye. Mhm, bisimilah. waaw euh, dafa am yenn fan yi ci ginnaaw dama gént euh, yonent bi sallallahu alayhi mhm. euh, si sama biir gént dama ànd ak moom. Mhm. waxul da doon da doon siiñ rek. da doon. da doon siiñ. c'est-à-dire reetaanul da doon siiñ rek te kanam si daal. ñu ngi ko expliqué ñi ko jot a gént gis ko ak man li ma ko gisee bokkul. loolu tax mais kanam kanam gu gu rafet macha allah si sama biir gént sax bi ma yeewoo sax dama euh, dama doon dafa am daral ma yëg daal léegi si biir gént bi dama ànd ak moom euh, won ko sama mag bu góor euh, wax leen ni moom la ku ma ko expliqué du ma du ma gëm ci biir gént gi. Mm-hmm. waaw léegi di ma ko gisee genre daal kanam kanam kanam gu rafet la. macha allah. Mhm. Euh, mais melul comme nit ñi ñu ngi ko génte daal ay leer wala mag yooyu gisuma ko. Mhm. mais yonent bi laa gént te ñi ma laaj ñi ma jot a laaj ñëpp. Mhm. leneen seytaane mënul jël mënoo mënul sax jël jëmmu yonent bi ci gént. donc bu nekkulee seytaane xaw ma lan laa gént loolu laa bëggoon ngeen firil ma ko incha allah. dinañ ci ñëw léegi incha allah. shukran wa sanati bi zalika xaalan incha 88 628 65 65 ala kulli xaal mën ngeen ànd ak ñun ci eh, yooyu li numéro wala balaa ñu ñu jël ko ci ligne bi te ñëw kon salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay ziar. salaamaaleykum sant yàlla bu baax na ngeen def coono yi. alhamdulilah. macha allah tabaaraka dama doon bëgg a leeral suma benn gént bi ma géntoon. waaw. léegi damaa géntoon ne. ci côté fajar bu ma jullee ba pare te daat mm-hmm. maa ngi eh, allo waaw ñi jël keneen ki ci topp salaamaaleykum waaw xam naa ligne bi xaw a jafe rek waaye dinañ ñëwaat ci kanam incha allah eh, xaj Abdullah dañ lay bàyyi gi ñu jël ki ci ligne bi te ñëw kon asalaamaaleykum. allo. allo. naa def. ñu ngi fi sant yàlla. allo. allo waaw ñu ngi lay dégg. waaw dama doon laaj firi gént. waaw. waaw daa amoon gént bi ma bëggoon a laaj. Mm-hmm, bisimilah. Ah? ñu ngi lay déglu bisimilah. loo wax bu ne ñu ngi lay déglu bisimilah. waaw dafa amoon benn gént boo xamante dama géntul sama borom kër bu ma tàggool bu yàgg. waaw. waaw ma gént nag mu takkaat ma nag mu takkaat ma ba jox ma can gi nii ñett gi neen ñaar téeméer may laaj loolu lan la. Eh, da nga dafa laa takkoon ba pare fase la. fase ma waaw léegi mu ma gént nag mu takkaat ma dama joxaat xaalis nii may laaj loolu lan la. Mm-hmm. waaw baax na jërëjëf. jërëjëf. Eh, ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum wa salaam papa noo def. sant yàlla alhamdulilah. jàmm rek bisimilah. man papa dama doon sa numéro laa bëggoon. Hmm? sa numéro laa bëggoon sa numéro. waaw numéro bi balaa ngay coupé dinañ la ko jox léegi incha allah waa régie dinañ jox numéro bi léegi balaa ngaa coupé. baax na jërëjëf euh, jox la kàddu gi ñëwaat xaarandi. askan wi ci numéro yooyu ala kulli xaal ñeneen ñi jël ki ci ligne bi te yow salaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum waaw bismillah waaw ah, ngi may dégg da nga ne xaw naa suufe tuuti de hmm? man xaw ma allo man danga maa déggul waaw maa ngi dégg waaw dama ne waaw maa ngi nuyoo sant bu baax ñu ngi leen di sant yéen bu baax maanaam damaa amoon gént bu ma bëggoon ku ma ci laabiré. waaw. ndax dama géntoon maanaam ku tedd ki Serigne Touba. da nga gént Cheikh Ahmad Bamba. Serigne Touba waaw Serigne Touba. waaw. ak Cheikh Ibra. Uh-huh. waaw ñoom laa gént maanaam ñu ñëw sama kër. ñëw sa kër. waaw waaw. Uh-huh. léegi damaa génn ci néeg bi. Uh-huh. ñu ne ma Serigne Touba moo nekk ci néeg bii. waaw. waaye moom rek moo nekk ci néeg léegi kenn duggut mhm. léegi Cheikh Ibra Fall taxaw ci mhm. bunt bi maanaam taxaw daal nit ñi toog ci kanamam mhm. waaye der mu tàkk ci ndigg li maanaam maanaam der gi mu tàkk ci allo waaw dégg dégg dégg bi moo xaw a naqari xam naa ci li mujj ci laaj bi Euh, su mënee duggaat la kaana xayran dana gën mu gën ñu indil euh, li des ci gént ndax li kulli xulmin mabdaun wa intiha gént goo gis am na commencement ak fu mu jeexee euh, dañuy sopp lool ñuy indi gént yi ci commencement yi ba fa mu jeexee ndax bayaan bi di gën di leer xaj Abdoulaye Jalle ñu ba delloo la kàddu gi xaarandi askan wi. Mm-hmm. Eh, ci numéro yi incha allah. jërëjëf oustaz ki nag nee na eh, waajuram dafa génn àdduna war na def ñaari at. Mm-hmm. mais dafa gént mu ñëwaat ci kër gi waaye dafa mel ni da ko mere. Mm-hmm. ba moom muy daw sax di laaxtu bañ ko gis. muy laaj loolee lan lay tekki ci wàllu gént. waaw alxadab inda alladi raxala ila jiwaari rabbihi fi lxulmi lahu bayaanun xaas gis nga soo amee sa waajur mu génn àdduna nga gis ko muy ñëw mu mel ni da ngeen dëngoo wala da na a xuloo wala da ngeen a jotee eh, day sopp lool nag ki nga xam ne kii mooy génn àdduna li mu fi bàyyi ci njaboot gi muy ndenkaay muy conseil muy alal ñi togg di ko toppatoo te njaboot gi bañ di tasaaroo ci ginnaawam mhm. bari aana luy nit di génn àdduna di yóbbaale mébét waaye mébét yooyu ala kulli xaal yenn saye bil ishaarati ci eh, misaal ci gént eh, day ñëw mel ni ko xaw a am lu ko naqari mhm. loolu nag dañu war a bàyyi xel ci njaboot gi bàyyi xel ci alal ji mu fi bàyyi yenn saa yi nit génn àdduna ñu war ko miraas xaañ abdullah miraas ma yéex lool eh, te du gënul ñetteel ba it ala kulli xaal njaboot gi tasaaroo gënul ba tax na yu mel noonu mooy indi yenn saa yi xaañ abdullah ngay gis sax sa waajuru góor wala bu jigéen ci melokaan bu mel noonu waaye dañuy sopp nga génneel ko nàkk dugub mm-hmm. ñeen fukki dànk ak benn dànk bu nekk nga dànkaale ko ak benn qul wallahu ahad di nga mm-hmm. ci amaali ñeen fukki qul wallahu ahad ak benn fa takunu haadihi sadaqa uh, xijaaban mastura anha aw sadaqatan muttasila wasila ila allazi aw ila allati raxalat ila jiwaari rabbiha Euh, dafay baax ci ki génn àdduna muy sa waajuru góor muy sa waajuru jigéen muy jara bàyyi xel xaaji Abdallah bismillah mhm. jërëjëf oustaz kii nag nee na dafa am dëkkandoom boo xam ni dafa génn àdduna mhm. ci biir gént gi waaye mu mel ni daal euh, percal bi nga xam ne moom la defar pour ku jigéen ki dafa dem ba si armeel yi mhm. mbir mu soppeeku doon yére jigéen yére góor muy laaj loolee lan lay tekki ci waaw loolu gënul gënul mooy da ngay dugg ci mbir te tekkiwul ne dangay dem ba foofu denc ko mbir ma soppeeku mhm. mbir la moo xam ne da ngay dugg ci wàllu àdduna foo xam ne fii ci wàllu am-am ci wàllu wërsëg dem ba yaakaar mu war a taxaw loola yàqu su deen commerce mën na ci dugg dem ba ci biir ba yaakaar ne ma ngay waaj a baax mhm. mbir ma yàqu su dee dafa jëflanteeg nit ci wàllu liggéey mën na ci dugg ba fu mu yaakaaree ne fa lay baaxee rek day am muskila day am xat-xat mhm. xaji abdullah tafadal jërëjëf oustaz kii nag neen dafa am bërëb nee na mu amoon e, ñaan goo xam ne dañ ko ko joxoon mu def ko ci mm-hmm. mais li ko jaaxal dafa tëdd guddi ñu wan ko ne ñaan boobu daal soo ko dindiwul mm-hmm. dina la indil jafe-jafe si say bërëb mu mm-hmm. jàppee ko ne loolee daal ay gént na lii mu dem ba ci kanam lañ ko wanoon mel ni lu nekk la mbir mi jaaxal ko trop muy laaj loolee lan lay tekki ci wàllu gént waaw xaaj laa gis nga ñaan dafa dafa am ay doxalin euh, nit ki su yoree lu mel ni magasin di jaay wala muy nekk commerçant bu mag wala mu yor projet di ko doxal wala yu mel noonu li mu yor bëgg yàlla ñoŋal ko mm-hmm. teg ko ci yoon waxam ne du yàqu du am benn jafe-jafe euh, bés boo koy commencé wala boo ko commencé ba pare commencement bi rëcc la nga dem ba ci biir sopp nañu nga toog ci diggi place bi nga xam ne fi nga yore projet bi mm-hmm. wala fi nga yore commerce bi wala fi ngay doxalee say mbir bopp nga toog ci digg béréb bi nga jàng ñaan gi ñaan gi nag ñu bëri am na amaana ñëpp xamuñu ko waaye am nañu ko xam muy bismillahi rahmaani rahim muy rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin gayra zi zarin inda baytika almuharram rabbana li yuqimu salata fajal afida min annas tahwi ilayhim warzuq min asamarati laallahum yashkurun rabbana innaka taalam ma nuxfi ma nuclin ma yafaal allah min cheyin fi l ardi wala fi lsama alhamdulillahi alladi wahaba li ala kibari ismail wa ishaq inna rabbi la samiu duaa rabbi ij'alni muqima salaat wa min zurriyati rabbana wa taqabbal duaa rabbana aghfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumu alxisaab hadihi al aya al karima alsharifa fiha manafi la tuadd wala tuxsa gis nga aaya mm-hmm. bi ngay jàng ci biir bitig bi nga jàng ko fukki yoon ak benn moo xam structure euh, de commerce la mm-hmm. moo xam structure la boo xam ne bi da nga ko def pour projet wala pour leneen ak leneen ku nekk yaa xam Euh, li nga jublu sa structure yi ngeen di taxawal mhm. nga def ci ñaan bi dina ko dëgëral ci ñetti fànn bi mooy première weer bi bu weer bi feeñee mhm. nga def ko première jour bi weer bi feeñee nga def ko soo toogee ba weeru duggaat ba bay génnaat deuxième weer ba nga defaat ko ba muy ñetti weer yoo xam ni saa yu weer yu feeñee rek da nga koy def incha allah euh, xaaj Abdallah loo yor du yàqu yàlla dina ci def la mu xaj Abdoulaye bisimilah. jërëjëf oustaz mais xam naa moom ci gént gi li ko jaaxal. Mhm. ba mu laajte ko ndax dafa am lu ko wan ne ko lii kat soo ko ci defee dina yàqu. Mhm. moom mu jàppoon ne contraire ba. Mhm. mu dem ba ay jamono lañ ko wanoon mu gis ko. Eh, te dañuy faratal di wax ne yenn saa yi mën nga gént ñu traduire ko leneen lu bokkul ak loolu. waaw nag lañ ko wan da ko gis. xam nga xaj Abdoulaye euh, addu'a silaaxul mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit. ñaan boo ko defee ci béréb antuwul rek jàppal ne na ko defee moo dul noona mm-hmm. imma juum nga imma tegoo ko ci fi nga ko war a teg imma tegul ci siraat mustaqim mm-hmm. waaye allahu huwa mujibu daat yàlla moo ne ud'uni astajib lakum fa inni qarib ujibu daawata daa isa daani mm-hmm. yàlla moo ne woo leen ma ñaan leen ma ma may leen tàllal leen ma seeni loxo wax seeni doléance ma faj ko kon euh, fala budda euh, mënul ñàkk bu ma nee fala budda sama xel day dem ci xaaji Malick si la mu waxoon mhm. fala budda min shakwa ilallahi kurbati fa maaliya xayrallahi jaabiru kasrati wa qaraiya baabal xayri allahu lam yufit lizaaka sarafna nahwa baabika wishati mhm. loolu rek day tegtale ne ala kulli xaal jullit dafa war di loxoom yàlla mhm. des na nag xaaji Abdullah gis dara dund ko yàlla won na ko ni ko gisee mu amee noonu loolu yàlla da koy mooñaale ci nit moom ñoo xam ne ñii balaa ñu ko gis dinañ toog weer door ko gis ñoo xam ne dañuy toog une semaine door ko gis mhm. loolu Euh, différence yooyu yenn sayde am ci mbir yi. Mhm. Euh, xaaja Abdullah bismillah. xam naa du ñàkk ne yii di ñëw dinañ ko gën a leeral. incha kii gént di gis ak kii gént ku dul gis ak ki gént leneen loo xam ni dëppool ak. la mu gis dañ ci gën a indi ay leeral ñu mm. delluwaat la kàddu gi nga mën a. waaw ma ñëw ci mbokk mi mhm. laaj yónnee laajam neen dafa gént ñu wéré di yaram di ko dàq. Mhm. gis nga nit ko naaqisul aqli man huwa qiila kama yuqaal bil arabiyati majnun majnun ci arab mooy koo xam ne kii xelam dafa wàññeeku su lay dàq wërsëg la ubbeeku la su la dóoree baax na su ngeen nuyantee baax na su la euh, joxee dara baax na lépp dafa léppam dafa baax moom naaqisul aqli mhm. muy ko wàññeeku ci xel di la daax wala mu song la wala mu dóor la wala mu nuyu la wala mu jox la dara euh, kilaaxuma ala xaddi sawa yi wu bëri la mhm. euh, beneen bi mbokk mi neen dafa dafa nekk dugg ci sëy nee na amul doom sëram bu jigéen géntal ko mu am doom ba njëkkeem di ci jooy wala moom sër bi mu ciy jooy <laughs> goro yi dafa gaañu goro bi waaw goro bi dafa gaañu mu ngoog <laughs> euh, géntal ko mu am doom te moom wax dëgg yàlla nee na amagul doom mm-hmm. gis nga nit ku amagul doom mm-hmm. génte am doom li muy tegtale mooy waxuñu doo am doom waaye dina yéex mm-hmm. su fekkente ne nag am na doom mi ngi ci biir sëy bi gént am doom kooku moom yiw lay doon ci moom yokkute waaye su fekkente ne xaaja Abdullah koo xam ne ki mosul am doom mhm. génte am doom te duggagul encore ci néegu sëy amaana bari aana lu sëyam di bari tardement wala am njabootam di am tardement mhm. loolu nag dafay jar a bàyyi xel dinañ ci ñëwaat ci kanam wax ko lan moo ci baax eh, keneen ki ci des neen dafa génn ay tamaati doom yu bari tamaati doom nag moom gént ko su dee yu ñor xom baax na su dee ay tamaate yoo xam ne dafa xaw a mel ni lu weex xaw a ñor ñorul baaxul loolu moom bu mu ci am ñaari xel euh, beneen bi mbokk mi neen dafa gént moom it euh, euh, te nee na jaba soxnaam dafa tollu diggante mhm. la ca tegu nag xam naa ligne bi moo dagg waaye neen daal soxnaam dafa tollu diggante te daa gént am doom waaw te dafa gént am doom mhm. mu jaaxal ko lool ah su soxna su gee su tolloo diggante gént am doom te tollu diggante yiw la yàlla mën na ci mën na ko jàppale xaaja abdullah ba mu mucc ci jàmm te du ci am benn jafe-jafe te du ci am benn tolof-tolof euh, waaye su ko ci nara a am it mm, dinañ ko digal yoon boo xam ne bi ala kulli xaal bu ci jaaree. Mm-hmm. gis nga dañooy farataal di wax naan say sa soxna buy mucc. Mm-hmm. yow mi borom këram nga jël sa loxo teg ko ci biir bi. Mm-hmm. nga jàng aaya bi ñuy bëgg a wax nii. fukki yoon ak benn dina mucc te doo ci am benn jafe-jafe. muy bismillahi rahmaani rahim. allahu yaalam ma taxmilu kullu unsa wa ma taxiidu larxaamu wa ma tazdaadu wa kullu cheyin indahu miqdaar allahu yaalam ma taxmilu kullu unsa wa ma taxiidu larxaamu wa ma tazdaadu wa kullu cheyin indahu miqdaar gis nga aaya la boo xam ne bii mu mhm. ngi nekk ci sóoratu raad yi mhm. soo ko tegee ci biiru soxna si jàng ko fukki yoon ak benn mhm. xaaj abdullah dina mucc te du am benn jafe-jafe incha allah euh, beneen bi mbokk mi neen dafa gént euh, waajuram bu jigéen la gént mu yor ay jën yu bari mu jaaxal ko lool ba si yàgg ñu ne ko mu dégg ñu ne ko it seen ruu mi ngi ci mi ngi ci mbir yooyu mm-hmm. li mu bëgg a wax daal mooy jën yu bari na ba jaaxal ko al mm-hmm. asmaak al kasira fil xulmi jën yu bari nag wërsëg la su tekkee ne jën yu ndaw la yem te bari mm-hmm. xéewal la su fekkee ba ëpp dimension jën normal baaxul gént ñi ne nag seen ru mi ngi ci mbir yooyu dañ lay wan ne sa wërsëg mi ngi ci loolu tekkiwul na ay ru lañ lay tegtal mhm. wërsëg bi mooy soo jëlee loolu doxal ko yëngatu ci yàlla mën na la ci ubbil wërsëgu yaatu moom la ñuy teg moom la ñuy wax naan seen ru mi ngi ci loolu mhm. eh, beneen bi mbokk mi neen dafa gént eh, xajaan dalay kii neen dafa gént picc boo xam ne bi dafa naaw dugg ci dënnam mu jaaxal ko lool mooy bu njëkk bi picc bu naaw dugg ci dënn du picc buy naaw dugg ci dënn dangay dégg xabaar boo xam ne bi su ñëwee du la neex naqari gi mu lay naqari ci sa biir xol mm-hmm. mooy picc biy dugg ci sa biir dënn sa yes sa yasma xabaran xayro tayyib fi xayaati ala kulli xaal dina dégg xabar boo xabaar boo xam ne du ko neex dina ko metitlu dina ko naqar dina ko naqarlu naqarlu boobu mu koy naqarlu nag mooy tolloog picc bi xar dënnam dugg ci na ci bàyyi xel waaye na génne sarax baynal xamxi wa durrati diggante mboq ak dugub eh, mu génne ko sarax li wajhi llaahil kariim dinañ ci ñëw léegi eh, beneen bi nee na eh, dafa gis ku boykat bu mag ci benn bâtiment mu ñëw fekk fa ànd ak waajuram nee na muy wax ak moom mu ne ko daal yow da nga am fasaaxa fasaaxa fasaaxatul lisaan bil arabiyati mm-hmm. fasaaxa ci arab mooy koo xam ne kii làmmiñam dafa set mm-hmm. baatu arab la fasaaxa baatu arab la mooy ko xam ne kii làmmiñam bu dee tubaab eh, ki am fasaaxa dañ koy tudde ci français mooy quel quelqu'un qui a le verbe facile comme ni ñu koy waxee mm-hmm. koo xam ne kii wax jafe ko da ko yomb mooy fasaaxa bokkul nag ak baat bu neex bokkul waaye ñaar yëpp dafa baax ci moom eh, nee na bëgg na ko wayloo mu bañ nag waaye gént di way baaxul woy loola it ngay woy baaxul ñaar yooyu benn baaxul nañ ci bàyyi xel eh, beneen bi ci tegu xaaja abdullah eh, mbokk mi ne dafa gént ñu ne ko danga feebar feebar bu metti nit su géntee ñu ne da feebar wala nga gént yow sa bopp nga tëdd feebar al maradu fi l xulmi yatagayaru sixatan kamilatan fi xayaati l insaan gént feebar ay soppali nekk nekk wér wu wér wu am solo ci yow wala kunta maridan donte da ngaa feebar sax yàlla ci mbaaxam na la delloo sa sago di nga wér di nga dellu ci say activité ala kulli xaal euh, beneen bi ci toogu xaaji Abdallah mbokk mi neen dafa gént ba tey euh, gis boppam ci biir ndox ak soxnaam almaau xayrun almaau yusrun almaau fatxun ndox alal la wërsëg la ubbeeku la soo nekkee ci biir yiw la su fekkente ni yaag sa soxna yéen a fa nekk xéewal la ñaar yëpp dafa baax euh, gént na nag nee na soxnaam moo gént di am doom ñaari yoon mm-hmm. gént di am doom ñaari yoon dafa am ñaari tegtal ñaari leeral bu jëkk bi su fekkente ne ki ko gis mi ngi ci biir sëy euh, yor njaboot mas na am doom gént am ñaari doom ñaari yoon xéewal la su fekkente ne musul sëy musul dugg ci néegu sëy gént am ñaari doom baaxul Mhm. lu muy indi mooy balaa am doom dana yéex wala balaa am borom kër it dana yéex ñu bàyyi ci xel amma allazi suraxa dukaanuhu fi lxolmi wa sanaati bihi xaalan kii nee na dafa gént ñu toj bitigam ba dajji bitig bi yow ba alal yëpp mhm. ah, xaaji abdullah gis nga ñi sàcc sa bitig su dee da jaay bitig jàppal ne bitig boobu ngay jaay baax na place bi baax na defaraat ko jekk jekkal ko wa ala kulli xaalin wërsëg dina la fa fekk lillazi suraqa dukkaanuhu fil xulmi mhm. muy ci ki nga xam ne ki sàcc nañu bitigam maanaam toj nañ bitig bi yóbbu la fa nekkoon na defaraat palaas ba xéewal dina ko fa fekk yiw bari dina ko fekk ala kulli xaal eh, mbokk mi moom nee dafa gént sol yére yu tilime yu yu sagare nekk ci biir àll boo xam ne bi amuñu dara dañoo faqiir eh, al asyaab al mumazzaqa fi xulmi wallazi lam yajid shay'an fi xayaatihi xata dannahu danna annahu asbaxa faqiran alfaqru wa taasata wa taab walmashaqa wa diq shadid yatagayaru faraxan wa surur wa ginan ala kulli xaal fi xayaati insan gis nga xayi abdullah soppeeku dafay am yenn saay ci wàllu gént gis nga soo géntee yor yër tilim wërsëg a ngi ñëw ci yow soo géntee ñàkk lool ñàkk ba tar lool mm-hmm. jàppal ne wërsëg a ngi ñëw ci yow soo géntee nekk ci àll boo xam ne danga ngaa tumuranke nekk ci xat-xat loo lekk amoo ko fitna yi bari li ngay wut munta sotti mm-hmm. jàppal na alfaquru wa taabu wal mashaqatu yataxayaru farxan wa surur fi xayatin gis nga jafe-jafe boobu yëpp ñàkk geek yëre yi xotteeku yeeg tolof tolof yëpp day soppali nekk xéwal bu yaatu ci sa dund muy la am solo wa fi lfaqri xayrun wa fi wa fi taabi wal xat-xati àdduna ci gént dafay soppaliku nekk yiwu bari ci dunduk doomu aadama ñu bay ci xel moo gën nag xaj abdullah ku lay wax ne dama sol yére yi rafet yëre yi rafet baaxul mm-hmm. kër gu rafet baaxul solo ba jekk baaxul toilette ba jekkit maa fii maa fii xayr baaxul nañ ci bàyyi xel kii nag moom dafa gént sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ru'yatuhu xayrun wa ru'yatuhu fadlun wa ru'yatuhu ijabatun min kulli daawa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis ko aajugu faju la ci zaahir ak ci baatin law kunta faqiran donte da ngaa ñàkk di nga am law kunta maridan donte da ngaa wéridi di nga wér law kunta fi diqin shadid donte da ngaa nekk ci xat-xat di nga ci gént walaw kunte fi machakilin mutaadida soo nekkoon ci tolof tolof yi gën a rëy ci tolof tolof yi nga gis sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dina faj sa ajo ci zahir ak ci baatin eh, beneen bi xaaja abdullah eh, nee na ba tey kii neen dafa gént jëkkëram boo xam ne ko fas woon mel ni ku ko woo jox ko xaalis wala boog mu takkaat ko mm-hmm. di ko may xaalis mm-hmm. Euh, suñ la fasee gént di la di la may xaalis jàppal ni yéen ñaar bayna zawji wa zaw wa zawja mushkila yéen ñaar kenn ci yéen mu ngi nekk ci ay tolof tolof imma yow soxna si wala yow kii boroom kër gi nga xam ne moo la may xaalis yéen ñaar kenn dina ci nekk ci ay xat-xat yu mag mhm. wala mu nekk ci ay jafe-jafe àdduna yu tar euh, ñu bàyyi ci xel xaaja abdullah euh, beneen bi ci tegu ñu ñu bëgg ko leeral kii neen dafa gis Cheikh Ahmad Bamba e, mu ñëw ci benn kër nekk ci benn nekk ak Cheikh Ibrahim Fall e, ñi ñëw di ko seet si mhm. gis nga Cheikh Ahmad Baram Baram sakartu isqat sa bi xidmatin maa sani za xidmatin fi alani lahu wa fakk wàllami lahu xitaabi daaya bi maa yuhib maadiya wa zaadi li aqradiya zaadan li daaril karam ru'yatuhu fadlun wa ru'yatuhu xayrun gis nga xaaja Abdullah mhm. gis nitu yàlla yi sell qulna dalika miraran wa takraar ru'yatu al-awliyaai fiihi yusrun ru'yatu saalihin fiihi xayrun azim ibtidaan min ru'yatihim xataa ila intihaa gis nga gis nitu yàlla yu sell yi yiw la yokkute la aajugu faju la ci zahir ak ci baatin rawaat ne nag bu mu gisee Cheikh Ahmad Bamba ak taalibe bi nga xam ne nii ñëpp xam nañ ko muy Cheikh Ibrahim Fall mm-hmm. ñaar yëpp yiwul la koy jural ak xéewal ak ubbeeku wa ala kulli xaal dafay am solo lool borom xoqal bu kaa u ala saadatil amwaat tabkil aradi alayhim kasamaat xaaj Abdallah dinañ delloo la kàddu gi euh, nga ñëw ak ñun ci yenn laaj yi ngi yor Mhm. balaa ñuy ubbiwaat téléphone yi ànd ak askan wi xaja Abdoulaye tafaddal jërëjëf oustaz xam naa dañuy delluwaat tuuti ci ginnaaw ndax mhm. soxna si nga xam ne dafa sëy juróomi at amul doom te goro bi gaañu mhm. gént na ko yow doo fi am doom xam naa loolee jaaxal na ko trop waaw xam nga du gorom moo koy wax ne doo fi am doom euh, tekkiwul ne goro bi mooy ñëw ne doo fi am doom waaye li ci am solo mooy day mis xam nga gént bu ko yàlla di indi ci nit dëgg dafa indi jëmm jaambur teg bari aana lu nit di gis jëmmi jàmbur ci gént yaakaar ni kooku la te fekk na du kooku dëgg bari aana looy jëflanteeg nit ci ci gént yeew ne diw laa gis te fekk na du diw mm-hmm. waaye yàlla ala sabilil misaal yàlla ci ay mbiram lu muy def rek dafa am fu mu koy jaarale mm-hmm. yàlla buy tëral misaal yi day indi da indil koo xam dëgg la mu dox mbir ma wax ko ci sa kanam pour wan leen ne la lii nii lay tëddee waaye tekkiwul na nekk fil xaqiqati Euh, jëmm ndaw soosu la mhm. waaye dañ koy bëgg woon ne ko rek euh, jafe-jafe bi muy nar a am ci diggante am ak ñàkk am xam nga wax naa leen ne la jigéen su sëyagul mhm. nekkagul ci biir sëy génte am njaboot ba moytul dina yéex ci moom bu fekkente ne nag yàlla may na ko mu am njaboot nekk ci biir sëy yor njabootam toog ci biir sëyam mën na ko mën na ko indil ay xéwal yu yaatu mhm. waaye nag ak lu mën a am it buñ la nee doo am sens contraire bi lay dikkee. dëgg la yakuna bil aksi li muy wut dina ko am ala kulli xaal dina ko indil. moo tax yaay euh, gént gi jaaree ci magam. wax kay ah, gént li ci ëpp xañ Abdullah bul yaakaar ni ki nga gis rek kooku la. Mm-hmm. bari aana la nit ñi di trompé wu ci loolu. Mm-hmm. gis jëmm nit rek xëy ni diw laa gis. dëgg la um, fekk na euh, diw moomu yàlla da ko fa jaaral ci ay mbiram rek waaye xaqiqiyan euh, du doon moom. Mhm. Euh, ñu bàyyi ci xel xaj Abdoulaye jërëjëf du ñàkk ma ngi lay seetaan mhm. ngir dalal ko lan nga koy mën a digal waaw dama koy digal rek mu ay julli ci biir mu togg ay ñam yu sell mhm. gis nga sarax bu ngañ koy génnee nañ sellal ñam yi nañ togg ñam yi ba mu sell na baax ñi koy jëfandikoo yëg ci seen bopp su dee ceebu yàpp la defar ko ba mu baax su dee laax la togg ko ba mu sell ñi koy jëfandikoo yëg sa mu jaral la it nga def ci sa alal yu bari gis nga xaaji abdullah moo tax alxuraan di ñuy wax naan lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuhibbuun mhm. xam nga yàlla boo ko soppee bëgg mu fajal sa aajo rek na la yàlla jaral lu bari mhm. wa ala kulli xaal dafay am solo ñam yi jox jullit yi ci wàllu sarax ñi di ko sellal di ko baaxal ba mu baax mhm. bismillah jërëjëf oustaz dañuy ñëwaat ci ñaan bi nga xam ne wax nga ko ci ki nga xam ne euh, dafa tollu diggante mel ni dafa am doom waaw te mu am ñaan goo xam ne wax nga ko te ñaan mhm. goo ko isa baaxul ci sage-femme yi moom tamit mu mën ko waaw sage-femme yi war nañ ko mën moom ko waaw sage-femme ak ñu nekk ci hôpitaux yi mhm. ak euh, docteurs yi ba césarienne sax waaw ba war nañ ko di xam mhm. ndax loolu da leen di dimbali dëgg da leen di dimbali mooy am na foo xam ne boo fa tolloo euh, boo naree sonn yenn sonn yi ci assister nit ci wàllu mucc man nga jëfandikoo aaya bi yàlla dina la ci dimbali yombalal la ko ba doo ci am benn muskila mhm. muy bismillahi rahmaani rahim ma taxmilu kullu unsa wa ma taxiidu larxaamu wa ma tazdaadu kullu cheyin inda miqdaar gis nga wa fi lqurani ma huwa shifaun linnaas wa rahma gis nga alquran mhm. euh, lépp a ngi ci biir di ko wër yëpp di daw di topp ci ginnaawam mu ngi ci biir alquran kay mhm. buñ ko gëstoo rek yàlla indil ñu solution. dëgg la kon dafay am solo lool. Mhm. ñuy bàyyi xel ci mbir yu mel noonu. dëgg la waaye xam naa dañuy delluwaat tuuti ak askan wi. Mhm. ubbi téléphone yi amaana ñàkkul ñu nekk ci ligne bi bëgg a dugg si. Mhm. Euh, muy 88 628 04 05 wala 88 628. salaamaaleykum. waa xam naa ne kon euh, ñàkkul ne xaaj Abdullah mm-hmm. waxtu bi xam naa ne daf ñu xaw a dab tuuti rek ndi kon dinañ gën a indi mm-hmm. euh, leeral ci yeneen laaj yi nga xam ni seeni borom bëgg nañu indil ci ay leeral mm-hmm. te waxtu wi xaw a xat waaye dañ koy jégglu rek en la kulli xaal luñ ci manquele ñaan nañ yàlla buñ fi dellu sawaate incha allah euh, yowmal jumaa al muqbila lépp lu ñu manqué fii ñu mottali ko ci ajuma bii di ñëw xaj Abdoulaye ñi delloo la kaddu gi mm-hmm. nga tàggatoo ziyaara askan wi tàggatoo ak ñoom ñu door a euh, tëj waxtaan bi bismillah jërëjëf oustaz ñu ngi nuyu Papa Laye nekk foofee ca Tëngéej ca marché ba mm-hmm. di nuyu Ousmane Sène sant yàlla di nuyu Alioune Cheikh Ndiaye sa maris di nuyu mm-hmm. tamit Fatou Laye waaye di nuyu tamit Adja Mame Yacine Sakho si jàmm gën yaayu Doudou Sy ñoo ngi lay nuyu di la ziar. Mm-hmm. di la wax ne ñaanal yàlla may la fan wu gudd ak wér-gu-yaram. Mm-hmm. ñu dalawaat la oustaz kaddu gi. waaw ñu ngi ziar mbokk yi nga xam ne dañuy bàyyi xel saa ne ci waxtu yi mm-hmm. dañuy déglu. ñu ngi ziar Adja Soxna Ba Adja Mati Ba ñoom Malick Ba ñu ngi leen di ziar di ziar Adama Ndiaye Dikku Fall ñoo ñëpp ñu ngi leen di ziar di ziar euh, Ndeye Ba Dakar di ziar Nancy Aydara ci Mbour ak waa Mbour yëpp ñoom lan la faate ñoom ñoom Cugu ñoom ñëpp waa ko Fatikunda yëpp ñu ngi leen di ziar di ziar Adja Marème Ndiir di ziara ba tey Adja Ndeye Salaan ñu ngi koy ziara Adja Mari ñu ngi koy ziara Adja Ndeye Ndiaye Ismaila ñu ngi koy ziara Adja Sayfal ñu ngi leen di ziara di ziaret Adja Ndeye Ba di borom këram di Cheikh Aliou Cissé ñu ngi leen di ziara ñoom ñëpp Euh, di ziar xaaji Abdullah sunu collègue yi nga xam ne dañuy bàyyi xel Abdourahmane Mbacke. Mhm. mu ngi lay ziara di la ndokkeel ci ajuma ji. jërëjëf Abdourahmane Mbacke ñu ngi koy ziara ak sëñ samba ñoom ñëpp ci Louga ñu ngi leen di ziara di ziara it suñu collègue yi nga xam ne dañuy bàyyi xel saa ne mm-hmm. alaaji maali Kayre ci États-Unis ñu ngi koy ziara ak soxna moom it Ndeye Fatou Samb mm-hmm. euh, di ziara ci North Carolina comme niñ koy waxee euh, di ziara ba tey suñuy collègue sunu xarit di suñu xarit lool muy commissaire euh, Mujibou Lay ñu ngi koy ziara di ziara ba tey Hadj Abdoulah Aïssatou Gueye mm-hmm. Euh, Bachir ñu ngi koy ziara ci Aksar di ci Thiané Fall soxnaam Rose ci France ñu ngi koy ziara Kéemaxo mhm. jaxa bi Alaaji jaxa bi ñoom ñëpp fàttewu ñeen mu dina may euh, Mouhamadou Mbaye ñu ngi ziara ñoo ñëpp euh, di ziara ba tey suñu xarit suñu collègue nga xam ne yow ala kulli xaal waxtu wu nekk daf ñu bàyyi xel muy alxaaji Samba Diop moom it daf ñuy bàyyi xel saa mm-hmm. ci waxtu wi di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan yàlla mm-hmm. euh, su réew mi yàlla fi yàlla def jàmm yàlla nañu yàlla jàppale yàlla na yàlla teg loxoom ci askan wi amiin na yàlla tàppi xool yi ñu ànd nekk benn amiin waay jàppalante yërëmante dimbalante li wajhillahil karim Euh, di ziare euh, ba tey nag suñu kóllëre maxa taal maxa taal ñu ngi koy ziara ca Italie moom it ku bëgg émission bi def na déglu xaaji Abdullah ñu tàggatoo ak askan wi aoudu billahi min alsheytan arrajim bismillahi rahmani rahim اللهم رب لا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك يا الله وعلى عن ذكر ذاكرين كبرياء عظمتك يا الله فلا ينتقص إلهي ما أردت أن يزداد ولا يزداد إلهي ما أردت أن ينتقص لا أحد إلهي شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس kallatil alsuna an tafsiri sifatika ya ilahi wan xasaratil uqul an kunhi maarifatika ya ilahi fa kayfa yusaf kunha sifatika ya rab ya man qaala li musa idrib bi asaaka albahra fanfalaxa fa kaana kullu firqin ka tawdil azim salli wa sallim ala ayni zatika alaliyati bi anwaai kamalatika albahiyati fi xadrati zatika alabadiyati ala abdika alqaimi bika minka laka ilayk hmm. salatan ilahi taftax lana biha ababa alrida waltaysir wa tuxliqu anna biha ya allah ababa shar wa tacsir wa taqdi lana biha jamia alxawais wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira anta ya rabbi waliyina wala tazalu ilahi takunu waliyina illa an tantahi alxayatu fa nicma almawla wa nicma alnasir inna allaha malaikatu yusalluna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima salla allahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima allahuma rabbi salli ala sayidina muhammad